sanga bi ne ñu ngi nuyu ñépp daayira yu góor yi ak yu jigéen yi turu daayira la waaye nag ñépp ñoo fi ne ñi bokk daayira ñu ngi fi ñi bokkul daayira ñu ngi fi lépp nag aw yiw la di gërëm sunu boroom si li nu baaxe ñu gëm yàlla moom subhaanahu wa taala ndax loolu nee na loolu sens bu rëy rëy ndax yàlla nee na lii gën a bari ci nit ñi gëmuñu ma kon ñun mënoon na noo boole si ñi gën a bari yàlla génn nu foofu boole nu ci ñi gën a néew ñi ko gëm waaye nag ba tey mbir mi teereegul du tere nu ngi gërëm ndax mbir mi kat mu nga ca lan ngay mujje nee na loola mooy problème bi nee na nit dina tàmbalee di jëf jëfi waa ba digganteem ak aljanna dara doxatu fi lu dul lu tolloog ab xasab xasab mooy lii nga xam ne moom ab jéggi rekk la nee na yëkki sab tànk teg nee na loolu rek moo la dese nee dogal ba dal jiitu ëlbati mbir yi nee na diggante bu gàtt boobu nga def fi ak weddi yàlla jëf fi jëfi waa safara yàlla rey la ca ñu daldi la yóbbu sawara xoolal kooku góorgóorlu na ba digganteem ak buntab aljanna jéggi rekk moo ca des nee gàllankoor ñëw nee sallallahu alayhi wa sallam da daan wax naan allahuma ya muqalliba alxuluub sabbit xulubana ala diini yow yàlla yow mi ëlbati xol yi jële ko ci ngëm mu jëm ca ak weddi wala jële ko ci weddi mu jëm ca ngëm yàlla na nga saxal sunuy xol ci sa diine min bi nee li ma doon wax léegi moo ko wax nee na nit ki day góorgóorlu ci wàllu yàlla ba dara desatul si digganteem ak aljanna lu dul lu tolloo axab xasab nee na dogal ba jiitu ko nee li muy gaaw gaaw dogal ba gën kaa gaaw ëlbati ay mbiram mu jëf si diggante ba jëfi waa sawara yàlla sunu borom ba dugal ko sawara nee waxoon naa leen ca Kàmbareen misaal moomu saaba bu mu daloon bu àndoon ak jullit ñi di xare xare bi metti ak ñoom yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ñii ka jege woon mun leen waa jële sawara la jëm nee na loolu ndëg doy waar lool ku nekk ci toolub xare daj fi coono yépp di dóoranteeg yéefar yi jaasi yi di dal ñuy gaañ muy gaañ ñu koy gaañ mu war a jóge ci loolu dugge sawara a ah, loolu day du neex a dégg de nee na waxewuñu ko noonu moom moo ko waxe noonu pour ñoom ñu dégg loolu lu jafe lay doon ci ñoom mun leen baax na ñu continuer ci bir xareba dem ba yag waja ne jam jam ya metti ci mom lol ne ba jam jam ya metti ci mom nee na mu yotu paaka ba mu yoron wala ngàndaay la mu dal de rendi bopam dal di xaru dégg nga lol gis nga deggante mak aljana la fa dess dara dessu fa woon di jihad andak ak bi sallallahu alaihi wasallam koku mom sa aljana dara doxatu fa waye nak yalla ku nakhare xam la koku nu mujje muñ gawar abdulit defuka doon na jëf-jëfi waa aljanna ba digganteem ak aljanna lu tollook xasab moo fa des mu def jëfi waa sawara mooy dafa xaru ndax metit yu nekk ci moom gis nga danger yi nga xam ne moo nekk ci xaru boo doon jihaad ci yoon yàlla mujje xaru sawara nga jëm kon ku yóbbu xoolaat li ngay def xaru dara jaru ko antanatul loola moom itam mu jekkali boppam jàpp ne loolu mooy noflaay ci moom yoneen ne lu ma leen waxoon waxoon naa leen kii de sawara la jëm tey mu ngi nii jullit day muñ wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas du noonu ay gaañ-gaañ di nee ni ngeen di gaañoo ay gaañ-gaañ di leen dal nee lu mu metti metti noonu lay dale yéefar yi nag yàlla da nee na bés yi yàlla daf koy wëndeel ci nit ñi dogal yi noonu naxar yi noonu àddina lépp mënul ànd a neex kon mu doon aljanna te aljana nag liggéey moo fay dugal nit ne fawwa jullit bi di jànkoonteeg ay naxar waaye naxar yooyu warul mën a àgg ak yow ci daraja yu toll na ngay xaru lolou nak musiba gënu ka rëy wala ngay wax baat yo xamne ak weddi yalla mu nga ca ey yalla luma la def yalla luma la def deggal lolou luma def yalla melni dal yalla mom boko deful dara dula natou lolou kon ñun laa yuftanuun loolu mënul nekk. nee na loolu mënul nekk. nit ñi yàlla da leen di bàyyi. ndax nit ñi yàlla da leen di bàyyi. bu ñu naan gëm naa. ku nekk naan gëm naa. ab jullit laa. te nag du ma leen nattu. du ma leen defal examen. amul si suñuy école. ban école moo dul def examen. ban école moo dul def examen. kon nu ñuy xamee. élèves yi. nangu nañoo liggéey ñii nga xam ne nangu nañoo liggéey ak yi nanguwul fawwa yàlla def loola yàlla ne xalset na ma caa xame te xam naa sax xam naa sax xam ak jàkkaarloo laay wax gisoon na lépp itam moom yàlla ñi nga xam ne ñoo gëm ak ñii oote woo ngëm noonu la de kon dogal bi mu ngi nanu ragal yàlla nit ki tamit dina jëf jëfi waa sawara ñépp di wax ne kib kàccoor la kii jubul kii nit ku bon la koo wax rek ñu ne cim ba digganteem ak sawara dara doxatu fi lu dul lu tolloo xob xasab buy jéggi rek di nërmeelu ci sawara nee na dogal ba gaaw dox digganteem ak loolu ëlbati ay mbiram mu jëf jëfi waa aljanna dal dee dugg aljanna mhm. wala wala déet waaw loolu lay loolu lay ñaan foofu nee na loolu lay ñaan ci alxuraan ñaan ak gi ñu doon tëje kaamil nee na ñaan gi ñu doon tëjëb alxuraan ji wala taxtim lana bi charri wa dalalati wa tuxyaan wa nabbihna qabla almanaya min nawmi alxaflati walkasalaan wa aminna من عذاب الخبر ومن سؤال منكر ونكير من أجل ديدان أبيد وجوهنا يوم البعث واحتخ رخابنا من النيران ويمن كتابنا ويمن كتابنا وسق الميزاننا بالخسنة لولو لب نينو لولو يب ميري دوغل لينيان بلنو يمجنون نينو يالنا يلو رفت libaas ñang nee na bàyyi libaas ñang wax na ne ragal naa samay jëf xaat te xaw ma ju may mujje xaw ma ju bu yemboog bu ñaaw nag bu yemboog bu nag nee boobu nag nee na coow la mu nga foofa moo tax naa gu baaxul ne am na ñoo xam ne commencé di ñu ngi commencé di la xeeb ndax seen ak jaamu yàlla gu bari daal ne loolu dafay feeñ sax ñoom booy wax ak ñoom mom ca waxin wa dala cay xeebaale ndax mom jàpp ne du gën a aljana mbir mi mbiru temps la rek biyem mu ngi ci loxoom moom aljana la jëm nga gis muy xeeb nit ñi ci loolu nee na loolu ñàkk xam la moo tax Seydina Ababacar laay da daan wax naan man de Babacar la ma gën a ragal si sama boroom moo di dogal nee ndax dogal yi dañuy ëlbëtëku ëlbëtëku bu gaaw boo xam ne moo gën a gaaw xef ak xippi kon nak lay mamadou kon nak lay mamadou moy la imam sahir don ñaan ne lolu moy la imam sahir don ñaan yal na bur saxal nu ci ngeum Yeah. yal na dee yal na buur saxal nu ci ngëm yal na buur saxal nu ci ngëm te jubal ñu yoon wu di yaa ilay na daaru naim yoo seydi saara min yaa rabbi mu daal di wax ci duwaawul xalaas ne ne mu daal dee wax ci duwaawul xalaas ne nas'alukal nas'alukal mawta alal iman min rek ñu ngi koy wax nasaluka al mawta alal iman loolu lépp ci mutt ñu ngi lay ñaan yàlla na nga ñu rey ci ngëm waaye ci kan la ko jële sayyidul wujud wa aalami shuhud imaamul muntaqin إمام الأسفياء إمام الغر المخجل إمام الدنيا والآخرة إمام كل أحمر وأسود إمام كل خلق الله سلمان بقدينا دبخول ويسيما كل

lan lay ñaan sax ci diine sax si tabaarakta wa taala sabatana allahu taala ala loolu sabatanaa rek ne sabatanaa rek yàlla na nu yàlla saxal te lépp ci ngëm ne ci lépp ci ngëm ak ci mboolam jullit yalla saxal la ci ba nga faatu si loolu moo jar di ñaan nee na loolu jar di ñaan moo mu ne bu leen wóolu pexem sama borom ak ay dogalam nee na wóolu tim dogali yàlla yi ak i pexeem nit ku perte kon bu kenn wóolu ne abu hurayra radiyallahu anhu dafa am benn waay lu bari mu ngi koy seetlu ci ay ñaanam ne abu hurayra fu muy ñaane foog mu boole ci yàlla yàlla na nga ma musal ci njaaloo kooku bés mu nekk abu hurayra mag mu tol ni yow ak fii nga toll ku la fekk ngay muslu ci njaaloo luñ lay wax mu ne way xaq kayfa aman wa ibliisu xay nee toskare ñeel na nan lay wóoloo te ibliis mu ngi dund Iblis pare na pour nërmeel nee na Iblis pare na pour nërmeel ma. ci minute yi mujjee ci sama dund. nee bari na ñu mu ko def. ñu yàqule. ci kaw ak mag. nee dem ba doon magum jëmm. di kilifa. mosoo daanu ci njaaloo. dem ba tollu foofu. sa digganteeg armeel yi. ay bés ñoo fi des nga daanu ca loola ci yàlla muccal kon bu ma ko waxati man daal feek iblis mu ngi fiy dund samam xel dalul damay muslu ci moom di muslu ci lépp ne loolu la kon nu ngiy gërëm sunu borom ba mu ñu boolee ci ñi gëm waaye di ko ñaan mu nangul nu sunu ngëm terey nu si dekkal ñu ci boole noog yonentam bii ñu jàkkaarloo Seydina Limaamu la ba mu ñu boolee ci gëm ka Seydina Limaamullahi sallallahu alayhi wa yàlla moo ko yónni ci dëgg moom mooy Muhammadu Rasulullaay démb ca nit ñu weex ña di seydinaa limaamu fii di mahdiyu ci nit ñi ñuul ñi mu oote nag nu gëm ka bayit ba tey ñu sante ka yàlla yal na yàlla rey nu ci gëm maam limaamu lay ne yàlla dogal na moom sanga bu tedd boobu la ka waroon def na ko maam baay laay woote na wàcce na moom jotal na mbindeef yi jaamu mu tiim leen seede gëm ña loolu martaba la kon sanga bu yii wàcce na ba mu fi jógee itam yàlla dogal seydina isa ruhullahi alayhi salaatu wassalaam wuutu ko moom itam matal dem fekki ko ba mu fi jógee Seydina Mandione Laye ko matal dem fekki ko ba mu fi jógee borom bés bii Seydina Baye Seydi Thiaw Laye toog seen palaas nee na yenu ñetti yen yooyu daan na ko wax lu bari ne Baye Seydi Thiaw daal de ubbil sët yi moom Baye Seydi Thiaw yenam spécial la am maamam ak ñaari baayam ne ku ñëw ginnaawam fokk nga boole ko moom Baye Seydi Thiaw ci yen bi ndax moo ubbi mbiru sët yi matal na dem def na li ko war Maam Alassane Laye yenu matal na dem def na li ko war Seydina Baye Abdoulahi ñëw yenu matal na dem def la ko ñoom ñépp nag yal na leen yàlla yokki leer yokk seeni ngëneel yokk seeni maxaama taas ñu ci seen barke ku ci nekk def nga li la war jot sa ngërëmal maam jot ngërëmal borom bi subhaanahu wa taala dal wan àddina ginnaaw dellu ci borom bi subhaanahu wa taala seydina muhammadul muhtar ibnu seydina ma ñoon lay fi nu toll nii moom la yalla yen yen bi yalla kay ko oyofalal yen bi ba mu fa ay wajuram teeri woon ak ay magam yàlla na yeex yàlla na teeri foofa te mu yeex lool ndax lolu manu ci ñak kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbuka zil jalali wal ikram sanga bi ne ma wax ne yal ne yàlla guddal fanam bàyyi ka fi lol lol neena ba li nu ko yen mu am sa ngërëmal sunu borom am ci ngërëmal mamam neena diine ji non lay doxe ñoom ñëpp ñun ñu ngi leen di gërëm di leen sant nee na loolu mooy kër Seydina Limaamullah nee na seeni bés ku ci ne bésam dafa bokka si bési sunu borom nee na borom bés bii di Seydina Baay Seydi Cawlaay pour wax ci moom ci li ñu am ci waxtu nee mënatul yomb looloo nu dal ci passé yëpp sanga bi ne li ma doon wax mooy bu ñu jàngee alxuraan ji sikkar li ci des moom lu ñu am rekk baax na